découvrir Leewtoo TV Leewtoo TV cent pour cent làmb tey nag comme ni ñu ko waxee rek ñun dañuy dox di wër làmb kii ñu toogal nag Talla Ndiaye moo fi njëkk a tëj ñu Iba Mar Diop trois heures ci bëccëg digganteem ak Balla Gaye 2 ñu tëj kër stade ba trois heures lañu ñu tëj stade ba muy bàcc seeraas Demba Diop bokk na ci mbër yoo xam ne nii ko daan feesal la yaakaar naa gëj ngeen koo gis tey nag fexe dañ ba gis ko tey ndax nag bàcc ak làmb moom defe naa ne àddina bu waaw lambi bàcc daal benn affaire la woon mbër maa ngi lay ziar. waaw lay ziar bu wér. di la bu baax. comme ni nga ko waxee. yàgg na ñëw déggante si whatsapp bi. pour mun a gisee. may taw bëggee Baye Fall. maa ngi jégul day wax jee tax bëggee. noonu la. mbaaru sëñ Fall yow. est-ce que comme ni nga ko yàgg a waxee rek. yàgg ma jë yàgg ma soxla. xëy na may defee defee ni ba yàlla def tey. ñu tase sama kër mbokk. sama kër papa. sama kër maam muy Ouzo. gis nga dama doon jéem a daw sax comme que fël-fëlaale bi def nga ko <laughs> ku ku kuy wër nit moom bañ jàppale googu moom mënatoo dem. Eh? waaw noonu la demee ko mais yaa ngi si jàmm. maa ngi bu baax a baax. mais bàcc fu mu nekk ci lu mu ne bàcc waa lamb dañ laa namm. comme ni nga ko waxee rek noonu la demee mais xëy na comme ni ma ko yàgg waxee rek li duus si nag li xaalisu cin li xam naa lii daa foo ñëw ma ñëw fi ñu tase fi mais xam naa nag lii dina ma may barki alxuraanu karim semaine prochaine nga ñëw. Seras Junior. Abass Seras Junior waaw. sa turando waaw waaw. mais lamb noo ko gisee. ni ma ko gisee moom laa la xam nga tey lu ñu bettante la mais li ma war a yaatal si làmb ak lu ma war a développé si lamb ak fu mbëri jaar si affaire CNG bi ak groupe mbëri ak li ma xam si mbëri ak li ma xam ci làmb ay interdiction wu lamb man du si bokk ko damaa yàgg a ñëw ñu naan bu mu fi dugg wala na yem fële wala na yem fii maam si ay preuve leer nag loolu ne moo dem dam ba jàngal ma tamit. ma toog benn benn place ne lu ñu ma boolewul rek bokk ma si sama làmb ji la mu jugee tamit ba mu si jugee moom li ne sama yaram ak li nekk sama kaw yëpp xëy na nettalee gu ko mais su ma si lu ma su ma ko nettalee Sénégal dinañ xam ne kat kii am na lu ko téye woon wala kii am na nu mu demee woon. Hmm. mais sa rakk yi nekk Pikine gis nañ fan yi ñu mel ni ñu xaw a teg ci làmb ji wala boog ñu ci wane seen bopp muy booy Niang ak Ama xale yooyu ngay doomu Pikine ak seen mag Eumeu Sène tey nekk roi des arènes ko biir doxal boobu Pikine di doxal làmb actuellement noo ko gisee. waaw comme ni nga ko waxee rek Pikine moom yaakaar naa ni benn bopp la <clears throat> kenn mënu koo xar ñaar lu ko daggee si Papa jóob ba jëlee ko si Balla Beye numéro un ba jëlee ko si mbëru démb yi ba jëlee ko si Mouhamed Ndaw ba jógee fa tey nekk si Eumeu Sène man ma jaar fa xëy na tam comme ni ma koy waxee rek teel a dugg si làmb nekk na lu bëri loo xam ne sama carrière nit ñi xamuñu tey ñu bëri tey dañuy yaakaar ni nu ma ko mën a waxee ni bàcci mbër la boo xam ne mbër bu yàgg la te fekk ne gën wàllu mbër yi si arène bi yëpp suma ma doon lim mbër yi ma si mag ñeenti mbër laa si mun a mun lim mais comme li nga wax si lu nekk Pikine moom dëgg la ñu ngi jàppalante ñu ngi gëstuwante suñu biir bu baax a baax a baax a baax waaw. booy ñang jëm ci combat ak Lac de loo koy wax. booy ñang moom mun naa ni sama rakk la te Pikine la dëkk Pikine laa dëkk man xëy na yàlla dafa def foo xam ne. man nitu nit ñi laa dama dem sax ba am problème mu génn dugg si biir askan bi ndax génn wàllu mbër yëpp man maa seen maa seen mbër xam ma wax a baaxoo rek moo tax dinañ waxaat feneen uh-huh. ba li nga limee si biir Pikine bi buñ jàkkaarloo dinaa la si biir Pikine bi nga wax maa seen mbër ba ba si mbër yi mbër yi fa nekk maa seen mbër man wala wala man maa leen buntu bi leen def mbër li may wax tam lu ma lu ma leer la comme li nga wax tam si diggante la de Guiers ak Boy Niang ak Boy Niang Boy bopp la spécialement papam daf ma jàpp def ma comme doomam bëgg ma dëggal du def dara te wax ma ko boo ñaa tamit waxi noppi doom am combat te woowu ma téléphone yàlla dafa def tam sama diggante tam la de guerre noonu la demee dafa am dañoo am relation bu du tax mais mun naa ne la de guerre ba ma gëj a moom 2015 nañ gëj a yàgg na de waaw nañ a déggante téléphone te boo ñaa ñu ngi déggante téléphone mais làmb làmb la mais man Pikine laa dëkk Pikine laa juddoo gis nañ Balla Gaye 2 ak Boy Niang ci ak ak ak Lac de Guerre di moos ci géej gi mu koy jàppale yow tey boo amoon looy soññe booy Niang sa rakk comme ni nga ko waxee léegi sa lépp loo koy soññe ci combat boobu pour le treize. ah lu ma koy soññ rek mooy Boy Niang moom ni moom benn moom neex na waxal moom neex na conseil neex na waxal neex na conseil mooy respecté na entraînement am respecté na mbëru Pikine respecté na nit ñi respecté na tamit booy xam naa li may wax xam naa ko comme digal digal Boy Niang boo koy digal daal li ma koy digal daal mooy. jikko bi mu yor na ko na ko continuer. nu mu war a bëreeg Lac de Guiers. nu mu war a bëreeg loolu laa lay wax quoi xam nga diggante moom man maa ngi Pikine Lac de Guiers sama waay la Boy Niang sama waay la du mu si wax dama si neutre rek ma tëddee si njaaxal. nga dëkk Pikine. waaw loolu dara xam nga dëkk Pikine nit a ngi jàppale ay ay ay ay ay ñoo xam ne ay ay ay ni ñu koy waxee ay doomu Pikine yoo xam ñoo yor mbëru Pikine ñoo tourné waat demaat yori mbëru Géejawaay wala dem tourné waat demaat yor fi mbëru mbëru parcelle wax ji nag comme temps yi passé bari na Pikine trop trop trop trop ku nekk di wax lii lii lii mais man maa man maa war a wax man lu tax ma daw nag waxuma boobu ba léegi am na lu tax mais comme ni ma la ko waxee barki alxuraanu karim bu ñu togee est-ce que dinaa mën a wax ndax laaj nga Pikine ñu naan Pikine Pikinité Pikinité Pikinité est-ce que Pikine est-ce que Pikine waaw voilà kon dinañ ko léegi Pikinité bi est-ce que dëgg non moom laa lay wax ni man ma neexee ma taxaw moo tax bëgguma bëgguma daal di wax comme ni ma la wax su ma neexee ma taxaw wax ni Pikine Pape Sarr a ngi wax chaque jour Pape Sarr xam na ma man xam naa maay Pikine du ma ne nag man maay maay Pikine mais defal naa leen ñoom mbëru Pikine yi ñoom luñ ma luñ ma delloowul lu tax loolu waaw léegi moo tax man la boo ñëwee nag spécialement kon nag ma bett fii ma wax la moo tax nga ne comme piginité bi man maa ko fi njëkk a wax piginité bi bu nekkee dañ ne piginité nii du dëgg nii la xam nga kenn waxu ko man nag maa ko wax buñu seetaanee lii ku ko mën a bu ko bu nekkee Pikine la dëkk dina ma gis te dinaa ko gis te dina xam ne man tam li ma wax si Pikine lu nekk la wala lu nekk la Pikine dëgg la écurie yaa nga fa mais écurie bu defee nii bu nekkee cinq sept écurie fa nekk am na ñaari écurie yoo xam na dañoo ñuul ko ñaari ñuul waaw yu ñuul ko léegi bu ñu jàkkaarloo mi noo ko gisee ñu ñu jeexale foofu ba daje rek sant yàlla rek sant yàlla rek sant yàlla rek